إلا الله لا إله salaam salaam salaam di jàmm aleykum nag jëm ci képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg lu baax wala ngay xool lu baax wala bëgg di barkeeloo lu baax benn adresse lañ leen ni daal di jox muy fan Pikine du Deñaay en face Sax Baar ci kan le Baye Fall le phénomène de la débiterie ko koy kan Ibou Saraxule nee na yow mi nga xam ne da nga bëgg méchoui yow mi bëgg dibité yow mi bëgg ginaar bu ñu lakk yow mi nga xamante ni tam da am xew bëgg def say commande moo xam livraison à domicile nee na la bi kenn képp la Ibou Saraxule numéro téléphone yi nga xamante ni ci ngeen ko mën a jotee nag mooy 77 157 80 49 77 157 80 49 wala ba tey nga mën ko woo ci numéro Tigo bi nga xamante ni mooy 76 489 89 99 76 489 89 99 nee naa la yow mi bëgg lu baax bëgg di dundee lu mucc ayib loo xamante ni fi ne daanaka doo ko bokk kenn ndax nee la am na ci loo xam ne kat lamiñ du ko tudd lu koy waral da ngay taxamtiku di taxamtiku di taxamtiku di taxamtiku ba doo ko mën a tudd. jaa ngeen jëf. laa ilaaha illallaah faal rabbana laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah rabbana faal laa ilaaha illallaah